concrètement est-ce qu'il y a une Sadio ñoo xam ni on doit hélas s'attendre à ce que dans ñu dem ñu jël ñu dem. d'accord mais même la finalité du marketing c'est la vente. mais avant vente dafa am luy ñëw ba pare. y a des stratégies yuy teg. oui commercial bi ñu wax ñu financier bi même prix bi même prix le prix du maillot. dafa am solo même prix ticket bi dafa am loo xam moo koy définir mais c'est le marketing qui définit le prix du ticket. mais maintenant li tax ñuy woo dem stade loolu c'est un travail en parce que jaayoo équipe bi équipe bi da koy jaay ko. te benn ball ngay géej waaye open press. mais da nga koy xam ne c'est open press day fees mais bu daanee kenn dañ dem golf. bu koy dem golf. parce que dañu liggéey si loolu. mais ñun nag on a assuré si côté benn affaire bi am mooy. Sadio dépendance man dama bëgg wax rek benn affaire waxuma Aliou Cissé xamul dara je le dirai pas. Mhm. loolu amul benn spécialiste bu koy loolu profane ñoo koy wax. Mhm. waxtaan bopp koñ. ku xamul dara daf ñu yomb ku xamul daaw du am diplôme ba ñu koy jox équipe nationale mhm. ku xamul daaw jël kan ku xamul daaw teg chemin bu mu teg kan bi ba mu ñu suñu premier tour mhm. mais tey quoi qu'on puisse su ma xoolee Aliou je vois un gars boo xam ne pour préparer un match en plan de jeu mais il est impec mais son problème mooy il a des problèmes d'adaptation dès que le coach ivoirien commencé indi ay affaire rek indi caissier commencé génne Fofana rek dafa réer <laughs> indi ne c'est pas arrêté <laughs> amul lecture boobu. loolu mooy défaut Aliou loolooy problème am. loolooy défaut am ko wax dee. loolu mooy dëgg. donc ñu demee bi ñu demee 2017. bi coach su bi ñëwee euh, kii bi Belge bi. waaw waay mais non mais non mais non mais nag Sonko Sonko Sonko yow ku yebaate nga. Eh. nga baal ma xam nga nga yebaate. yow yow ku yebaate nga. parce que yow da nga ne Aliou Cissé fi wax waxu profane la xamul dara li nga wax ni mooy xamul dara. non non non non non non non non non non non non mais da ngaa biti loxo. Ah. en fait en fait en fait tey su ma ne en fait. <laughs> mënu ma xam dara xam nga dara xam nga tax ma ne xam na dara. parce que plan de jeu. parce que day xool adversaire bi Edou Edou Diogo. xam ne lii moo koy parce que quatrième minute nga dugal Côte d'Ivoire ah. waaw Côte d'Ivoire quatrième minute nga dugal waaw nga ne waaw nga ne bi bi entraîneur Côte d'Ivoire bi dugalee Kanaka. dafa dugal Kessié andi Adi Gara andi Pepe. andi ah. alors voilà andi alors fixé andi ay gars yi daw. après c'est vrai saa waay réer. Ah. suñu <laughs> milieu terrain booy Lamine Camara dafa marqué match yëpp ba ba jeexal ah, ñaari booy ni si milieu terrain bi ah, ak ak Pamara Sarr mais il n'a pas vu que dafa dugal troisième pour rééquilibrer les débats même le changement qu'il a fait mais là ça m'a fait changement poste poste Lamine Camara la gën di gi mais changement da ngay def boo xam ne mooy dëpp match Ancelotti son fils lan la ko wax contre Bayern tant que indi ñu xusilu mu fixé ñu ak Rodrigo si côté yi ñuy daw dañu dugal Bayern bi la preuve. Bruce dafa doon néew gaay mais Joselu moo ñëw dugal. exactement moo nekkaat place avançante dugal. exactement à la réception il a un problème de lecture. maintenant bu si booyee nag dëgër bopp nag. ah on a deux problèmes ah, léegi nag saa indépendance. oui la coupe du monde un niveau beaucoup plus relevé ñëpp jooy Sadio Mané mu blessé Munich dama coupe du monde mais on dans une on était dans l'Équateur la. kii les Pays-Bas oh et, et, et, et le la marche kii Angleterre Angleterre bu ñu amoon Sadio Mané sax Angleterre moo ñu mën a pour man Angleterre actuellement sur le papier c'est la meilleure équipe du monde léegi nag sa ay amul mais dafa am benn affaire bu am solo mooy à l'issue à quand même des circonstances atténuantes parce que colonne vertébrale ak yenn cadres yi ah ils ont dépassé la trentaine ans ah. nañ ko wax te dee Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Cheikh Kouyaté jëluñu ko mais tous ces mecs là ont dépassé la trentaine. Habib Diallo. te sportif de haut niveau bu dépassé 30 rek ne ko do xale. tu penses euh, <coughs> non Sabali Sabali jeexal ko il a juste 30 mais bu bàyyee c'est parce que blessure yi ñoom peut-être que peut-être que dañ ko ne amoo fi fi ñëwee. waaw <coughs> dëgg que loolu lañ ko gëmloo. ah waaw waxin la rek. waxin la waxin la waaw junj la junj euh, dafa am solo. bàyyi leen ko kii may Badara lu wax dëgg la a plus de joueurs qui sont à Chelsea au Bayern au Real Madrid ou bien à Liverpool. on a des joueurs yoo xam ne des joueurs sur qui on compte mais ñu ngi seen dans championnat saoudien dans le golfe où le rythme est moins intense où c'est moins compliqué. <coughs> moins compliqué ouais. oui ensuite nga am ay boo yoo xam ne Apapa Madrasa qui joue dans le grand club Jackson après c'est le désert yeah. c'est le néant. Mm-hmm. amatul yeneen joueurs yi ils se cherchent. Habib Diarra il joue à Strasbourg. Ismaël Sarr il n'est pas titulaire. il euh, euh, mais booy Barcelone en match local que. nekk Barça bee la nekk. Barça bee mooy Mikayil Faye Barça bee la nekk. Pape Matar en sélection il n'a pas le voit en mais laaj mais oui. avec son mais même football peut-être ci. mais vous venez de que l'entraîneur n'est pas flexible. vous dites que les joueurs sont vieillissants. la fédération ne communique pas que peut espérer de cette année n'a pas de grand on n'a il nous faut du résultat quand dafa am benn affaire bu am solo. <laughs> football Sénégal ñaari affaire moo ñu dimbali. waaw liggéey ñu tax équipe bi toll fii la ñaari affaire moo ñu dimbali. il faut le c'est les académies et les binationaux. c'est l'arbre qui cache la forêt. Mm. ay boy yoo xam ne France moo leen formé c'est la formation française France mu ñu joué France. Hmm. prétendre faux place Aliou dox loolu. il a du mérite nag parce que Aliou Cissé na yaa ngi wax sànq na rigueur tanière. na discipline loo ko munti waxal. parce que une équipe à l'image de son entraîneur sélection affaire du ay indiscipline. ay faits divers ay faits divers ay génn dem mbaali boîte amatul. discipline moo fi am rigueur moo fi am quoi qu'on puisse dire gàcce ngaa loolu moom c'est quelque chose boo xam day tàccu mais beneen affaire bi am mooy sa binationaux yi dem fële. waaw tali di ko la. Edouard Mendy lan la. Mhm. Pape Gueye lan la. Mhm. et cetera et cetera et cetera boo jëlee académie yi Sadio Mané fu mu génnee génération foot Ismaïla Sarr génération foot Lamine Camara génération foot. Mhm. en fait loolu moo ñu nax mais suñ club yi le football sénégalais liggéeyul lu tax. même équipe nationale buy dén da mbagg ak ay Maroc. ak ay Afrique a raté parce de latéral de latéral mais tey si on avait peut-être un championnat compétitif. nga am ay club mel ni Espérance de Tunis wala nga jëli kenn nga jëli les champions mais Aliou mais du sañaa bu xool foofu benn jour jëli ko ça veut dire que dans le championnat local. le championnat n'est assez compétitif n'est pas donc ñemee bu jël jour di ko jëlee foofu di ko indi fii ça va être le grand saut. loolu moo tax mais tey toog fi naa Aliou xamul dara man je le dirai jamais. Mhm. gàcce ngaa laa ma mais ma li ma gëm mooy li ma gëm Aliou dafa waroon bàyyi après 2022 bi ñu bi fa la waroon bàyyi na coupe du dem na huitième de finale ñu dem euh, Côte d'Ivoire fu ma defaroon bàyyi mais parce que fédération du ko daax li ma gëm mooy fédération du ko dàq mais nag un sénégalais qu'on trente mille trente millions net à la fin du mois mais tu es un privilégié et puis le métier d'entraîneur dañ ko sosaale ak ingratitude tey Ancelotti fu mu nekkoon Real Madrid gën a jëloon ñu ko fa mu dem Everton nar a wàcce Everton mm-hmm. amul lu mu déggul mais pourtant Ancelotti tey moo nekk tey moo tee Real Madrid la équipe équipe du monde lu mu déggul Xavi a tout en tant que joueur mais les gens sont devenus ingrats ba muy jàppante ak Laporta. oui métier entraîneur moo ànd ak ingratitude. am na benn spécialiste benn journaliste allemand bu musoon wax mu ne le métier d' entraîneur de l' équipe nationale allemande est le métier le plus difficile ak le métier de chancellerie du chancelier donc chez nous boo ko indee nekk président ak nekk sélectionneur moo gën a metti. Mhm. quoi qu' on puisse dire ah le Sénégalais le Sénégalais. connaisseur. fi gars yi xam football man mi gën ma que fi xam nga di jaar école de football. Mm. joué cadet nawetaan nga waaw joué senior extra extra. ba léegi wax ko Sonko ba léegi wax waaj dimbali xam la coupe du monde on n'ira pas à la coupe du monde. c'est un objectif qui est atteignable. mais si c'est atteignable parce que sept matchs moo dese. man wax yëpp. waaw waaw bien sûr. c'est li may wax li may wax yàgg na fi. Mhm. li may wax nekkul lu bees yàgg na fi. tey bi nga dem Côte d'Ivoire di sax mais loolu mu fi woon. loolu ah. yàgg na fi. léegi nag benn affaire bu mën a am mooy. Ah, on va s'adapter mais yaa ngi dem Mauritanie sans indépendance pour man amul. ok euh, y a possibilité. mais que Aliou Cissé pense à régénérer l'équipe en intégrant les boys petit à petit. Euh, euh, Bamba oui yaa ngi demandé par oui non j'ai bien aimé la question de Kounta tout à l'heure uh-huh. pourtant li ma doon wax sànq au début rek. Uh-huh. dañu nekk si